jëmm joo xam ne yëngoom ak dalam ak jéegoom liggéey Cheikh Moussa rek la ma ne saa xamee ci moom it li Sëriñ Tuubaa waxoon ne yoonu murid amul wàcc boo doon wàcc am na kon suñu Cheikh daa war a wàcc rek daa war a wàcc waaye xam na ne amul wàcc waaye bu ñu ko dëgmalee rek dana ko yombal am liggéeyam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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك jullit yi noo لن دي نيو nuyu bu baax monsieur le ministre nuyu délégation bi nga àndal te président de la république yónni leen ci màggalu Cheikh na Massamba sëriñ Mamour muy loo xam ne njëkku koo def tey def na ko ay yoon fa tabarakallahu bu yàggul rek la fi ñëw jaale si sëriñ Moustapha Massamba te bi mu koy jaale si day fekk na ñëw fi muy yow ak sëriñ Abdou Bali ak njaal ma def na ko ba mu mat sëkk mu dolli ca ñëwal boppam ak délégation bu ko mat sëkk ñëw ba fii ci Daaru Karim jaalewaat kon loolu yëg ak pas-pas ak yéene mën koo weesu ñu ngi koy sant bu baax ci loolu di ko sant ci taxawaayam ci réew mi waaye di ko sant ci taxawaayam ci Tuubaa ndax fa tabaarakallaahu def dafa mënta matale waaye lu bari def na ko fi bërki démb la fi ubbi hôpital boo xam ne ay milliards yu bari la jar corniche bii mu waxoon ñu ngi ci daaneel lee mu àgg tabarakallahu ak li mu fi ci def ci assainissement mottali li fi Ablaye Wade defoon ñu di ko sant bu baax ci taxawaayam ci loolu ci kër Seex Masàmba itam bii mu fi ñëwee jàpp na ne wax na ne dana jàpp ci liggéey bii ñu def muy jumaa ji tabarakallaahu wax na ne yoon wi jóge fii ci hôpital bi ñëw ba fii dana ko ko drone dëgg la naam loolu baax na waaye li nu gën a bëgg sëriñ maam Maamoor gën koo bëgg mu gën a gàtt ci nun bu loolu amee ba noppeet bu mu fanq loolu yoon wi muy wax mooy jóge ci hôpital bi ñëw ba ci peeroo bi jàdd jëm kër sëñ Modou Faty Khary penc moomee jóge fa ñëw ci penc mii loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg moom la sëriñ bi bëgg waaye bi gën a jub ci noonu itam du ko yàq mooy boo weesoo kër soxna may trente bi ngay jot direct la def ci pencum sëñ Moustapha sàmba def direct ci péncum sëñ daam def direct ci péncum sëñ Modou Faty Khary jàppaloo ak godoro bi mu defoon mu jógee foofu ba ñëw ci kër sëñ Modou Faty te loolu li muy niru niru lu bari ëppul ay ñetti kilomètre ëpp ñaari kilomètre sax ëpp loolu bu ñu ci jàppalee sëriñ bi dana ko gërëm lool ndax dana wàññi aw yoonam lu bari ndax bu jógee ci këram jaar yoonu daaru muxti ba muy agsi ci hôpital bi doog a jëm si daaru karim gudd na lool te lii bu ko defee daanaka du ëpp ñetti kilomètre ba kon loolu lu ñu bëgg la mu def ko beneen bi ci des ci mu waxoon ne dana ko def mooy jàpp ci yëngutu yi sëriñ Maamoor ci dëkk bi lu ci man dana ko ci def kon loolu ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm bu baax gannaaw bu loolu wee nuy sant sëriñ Modou sëriñ Muntaxa xalif général des mourides sëriñ baa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla taxawaayam ci kër sëriñ tubaa yàlla na ci am la mu bëgg lépp ndam lim ci bëgg lépp mu am ko ci yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def taxawam ci kër Seex Masamba itam gis nañ ko bu baax ndax bi ñuy wax pencum Seex na Masàmba fii de la mu ci dugge moo moo ci njëkk a dugg kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax ba ñu defee ba penc mi taxaw ñuy def jumaa ji la ci njëkk a dugg moo ko ci dugal kon fa tabaarakallaahu du ñu man sëriñ bi du man lu dul gërëm ko sañ Maam Moor du man am lu dul gërëm ko sant ko ñaanal ko yàlla liggéeyam mat sëkk yal na ko yàlla def gannaaw bu loolu wee noo ngi sant délégation yi ñëw ci màggal gi ñëpp bàyyiwunu kenn délégation yi jóge ci kër diine yi bari na bari go xamne ne mënee lim ndax loy lim da ngay wax fay fi la tambale fi la yam te daanaka ñi ëpp ñëw nañ ci bis bi waa kat sëñ Touba yi ñëw nañ fi ñi nga xamne ne sëti Touba lañ wa daru Muxti ñëw nañu fi wa daru salam ñëw nañu fi isbu tarqiya ñëw na fi mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ci yoon bi amul kenn ku fi ñëwul kilifa yi nga xam ne itam ñoo jóge ci dini, diine yi ñu bari ñëw nañu fi fa tabarakallahu Cheikh Sidi jox Baye Sidi Amin Kunta Serigne Assane Kunta ak waa Canaba ak kilifa yu bari ñëw nañu fa tabarakallahu gannaaw bu loolu wee noo ngi sant ni fi ñew ci walu aduna muy délégation bu Ousmane Sonko ñew na fi Serigne Cheikh Toro Mbacke mi ko fi nekkal jité ko Serigne Assane Mbacke ñëw na fi moom itam sëriñ jiili gay ñëw na fi sëriñ jiili sow ñëw na fi seex batu caam ñëw nañu fi seex abdu baara doli ñëw na fi kon ñooñu ci ñi fi ñëw ci opposition bi lañu bokk saw si di ñëw na fi fa tabarakallahu ñi nga xamne ay ñu ñu meen lañu xam leen ci yoon wi xam leen ci keur cheikh massamba ñu am ci taxawa yu reuy serigne madike ñang mi ngi ni tew mo doon wax ak yeen serigne Bay sar senegal Tour mi ngi ci kaw te ñii may limkat kenn ku ne def nga ci liggéeyu màggal gii lu bari loo xam ne li ko yéwénal ci la bokk sëriñ Lamine Baara Diagne ngi fi woon def na ci lu bari sëriñ Mor Sare def na ci lu bari alaaji Makki yu Fay def na ci lu bari njabootu alaaji Ndaama Faal def nañ ci lu bari sëriñ Bas Basiir Xaadim Awa Ba def na ci Lamine Dia Sénégal Sénico def na ci Ablaye Dia Sénico def na ci lu bari waa kër Idrissa Gueye xaadim ba ummi Gueye di doomam xaadim ba may doomam def na ci lu bari kon waaw ñu ñu ñu bari dañ cee dañ cee jëf fa tabaarakallaahu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di leen xamal ne nun day fa tabaarakallaahu sant yàlla rekk lañ war a def ndax am bis bokk ko ak say bokk ñu taxaw ca lañ ca war a taxawee def ca lañ ca war a def fa tabaarakallaahu kuñ ko defal mënoo def lu dul sant te bokk yi nu ci sa tuubaay yépp gis nañu leen waa kër sëñ baara mi ñu ko tuddee woon bët biig rek tey la fi xalif bi ànd ak ñoom dellusiwaat siyaar kër yépp doo ko delluwaat wane mbégteem lool fa tabarakallahu tuubaa ca kanam ñëw na fi sëñ ahmad badawi ñëw na fi sëñ basiiru porte-parole xalif général de Mouride ñëw na fi damay wax ne ñi fi ñëw ñëpp mënee suñu tudd kon ñi ngi sant ñëpp ku nu tudd ak ku nu tudd ñi fi ñëw ñun ñëpp gis nañu leen sant nañu leen gërëm nañu leen fa tabarakallahu yal na yàlla fay leen gannaaw ko loolu wee may sant ñi nga xam ne ñoo organisé woon màggal gii ndax ñoom day liggéey bi ñu leen sartoon def nañ ko ba mu mat sëkk dara mankiwu ci commission bi yoroon organisation màggal gi sëñ Abdou Rassakh jiite ko ak ñi mu ko àndal lañu war a def lépp def nañu ko commission bi yoroon communication li ñu war a def lépp def na ko sëñ Abdou Samad moom sëñ Maodo Fati Xarit jiite woon ko ak ñi mu ko àndal ba tax na mboolem tele bu nekk ci dëkk bi ci réew mi masal mi ñu ci bari ñëw nañ fi ñu ci bari def nañ ko direct RTS génn na ko alaayeen ci surnaalam loolu lu am solo la fa tabarakallahu Lamp Fall FM ak Touba TV ñoom dañ koo def direct fu waaye mën a nekk di ko gis yeneen ci des yépp nag bu boogaan dafa def lépp ba pare laaju ci benn dërëm lu dul li ko indi ak li ko delloo kem ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm te bi ñu ko waxee peex waaw peex bi ko waxee peex ca la jiitu woon ba mu ko ko waxee daf ne ko de danaa ko def direct te duma ci laaj dara loolu la ma wax gannaaw ba sëñ ma dikkee confirmer ko mu wax la mu kon ñi ngi sant ñoo ñep seen taxaway rafet na ñi ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di leen xamal ne day no bok lépp wa tabarakallahu sunu doxel non rek la wara deme ndax cheikh ma samba mi nga xamne mom lañu doon defal bis bi amul kenn kër go xamne defu fa njëkk yu rëy yu bari yëg leen teral leen warmaal leen def leen ay kilifa ñi tey di kilifaam ñi nga xam ne moo leen mag sax te sëriñ Tuubaa jur leen jox na leen cër yoo xam ne fa tabarakallahu kenn mënu koo weesu kooku mooy Seex Masamba moom dafa gisutoon kenn gisutoon lenn bëggutoon dara lu dul sëriñ Tuubaa rek sëriñ tubaat leer na moom liñ ci wax ñëpp wax nañ ko xam nañ ko jarutul baamu mooy way juram ndax moo ko defal lu way jur defal nit mooy sëriñam ndax mooy sëriñu murit yépp mooy sëriñam mooy magam ndax mook sëñ Mor Anta Sali bokk wenn way jur kon loolu nit mënu koo weesu moom it nag fay na ko ba nga xam ne ndax lépp loo xam ne bëgg-bëgg ma mooy bëgg-bëggu sëriñ Touba rek du ca teg lenn du ca def leneen lu dul lu mu wax mu def ko lu mu tere du fa jaar noonu moo doon aw doxinam cër bi mu amoon ci sëriñ Touba mel na ci misaal ne kenn mënu koo wax ba jeexal ko ndax féete na ko fu nekk naam ci xasida yi lañ gën a miin waaye féete na ko ci nit ñi ak taalibe yi ñu bari mu dem seeti leen ba ñu ñëw dugg si ci yoon ànd ak Serigne Touba ci liggéey bi loolu Cheikh Massamba ko def Kajoor Saalum ak Bawal fu nekk dem na fa ba ñépp ñëw jox seen bopp Serigne Touba ànd ak moom ci liggéey bii muy liggéey loolu liggéeyu Cheikh Massamba kon kenn mënu koo fay. dëkk bii ñu nekk itam di Daaru Karim gi ma doon wax léegi moo ko jox ndigal mu ñëw sanc si ko nekk fi bu toogee ba léegi ñu di ko doog a yeesal naa dëkk bu dëkk dëkku Daaru Karim bu bees te 1913 la ko joxoon ndigal ca lañ sancoon Daaru Karim ba léegi kon lu yàgg la woon waaye nag moom dafa amul soxla ci dëkk amul soon soxla ci kër amutoon soxla ci dara sëriñ touba rek la amoon soxla ci moom lu mu ko digal ca loola la nekk amul soxla ci leneen sëriñ touba bi mu koy digal yooyu yëpp xam na ne mënta ak moom mu faf ko bàyyi mu nekk ci moom rek kooku mooy Seex Masàmba jarul li ci guddal ndax li ci conférence yi wax bari na débat yi ci def bari na tabaron yi bari na yëpp koy xam Cheikh Massamba xam nga ko kon mooy kii mooy Cheikh Massamba mooy wayjëru sëñ Mor Anta Sall mii ci kër gi nekkal ko fi di xalifaam ak rakkam sëñ Abdul Xabiir akub jigéenam soxna Daba Mbàkke yal na yàlla bàyyi leen fi yàlla guddal seen fan te wéral leen te kàttanal leen ba liñ yéenee liggéeyal Seex ma ñu liggéey ko ba mat sëkk sëñ sëñ maam jiit ba lépp àgg jumaa ji moom itam lu bari lay jar ndax dafa yaatu lool te kawe lool kon ñi ngi xamal taalibe yi ne lu ñuy def lu ne ñoo ñoo ko war a def kenn ku ne bu mu seetaan lépp lu ci war a def na ko def nit ñi nga xam ne ñoom lay bëgg a lim ñu def ko ñooñu ñëpp li ñu ci daj dara dara def ko lu dul xam ne seen war teef la seen war la ka jiitu mooy sëñ ma dikke ñag mi ka ca mooy sëriñ Bay Saar ka ca mooy sëriñ Baara Jaañ Lamine Bara Diagne ka ca tege mooy Alaaji Mbakki Fay ñii ñooy ñi nga xam ne liggéeyu jumaa ji kenn mënu leen ci tabarakallahu ak sët yi nag nga xam ne ñooy sët sëñ Masamba ak Ablaye Dia Ablaye Dia surtout sëñ Modou Sare sëñ Mor Sare waaw sëñ Mor Sare kon ñooñu la ñuy sant ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen yàlla bu baax di leen xamal ne bis bii da mooy bisub Seex Masàmba koo xam ne Seex Masàmba ñor na la Seex Masàmba yitteel na la mbaa ngi mu doon sa bunt ci Sëriñ Tuubaa na nga xam ne dëkk bii rekk la am ci dëkk amul beneen dëkk ndax mënoon na wuti dëkk ni yëpp te bëgg woon gaaw ko am lool waaye nag la mu nekkoon na ko gënal ab dëkk waaye nun ñi nga xam ne nag ay nit dong lañu du ñu leneen li ñu war li war a am rek lañ bëgg mu am ko tàmbalee ci njabootam gi fi nekkoon sëñ Modou May ba ci sëñ Abdul Xabiir seen bëgg-bëgg moo doon lool rek sëñ Mor Anta Sali mii fi nekkit bëgg-bëggam mooy loolu jumaa ji dong nga ko ñor leneen ñëru ko fa tabarakallahu kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax a baax di santit ñi nga xam ne seen loxo jàpp na ci bisu màggal gii ba mu yéwén mboolem service yi nga xam ne tuddoon nañu leen ci CRD bi ñu ci bari lañu digge woon def nañu ko ba mu mat sëkk ñu néew a ci defu mel ne Sonatel moom gisuñu ko fi bariwul daal ñi ci ëpp ñépp moom def nañ liñ war a def fa tabarakallahu ñu ngi leen di sant bu baax di leen xamal ne itam sunu bëgg-bëgg ca loola du woon dara lu def li nu war a def rekk waaye nun wóor nañu ne liy defar bés bi ci njaboot bi képp lay jóge du doon ci leneen dafa am loo xam ne nag état ko war a def moo ko war warlu ci nit ñi moom la war ci nit ñi mu war koo def loolu mooy tax lu ne ñuy bëgg lam ca war a def ñu wax ko ko ba xam ne lii moo ko war a def mu def ko loolu rek lañ ca jublu lokk bi nga xamee nag liñ leen wax lañ ca man lépp def nañ ko ci yàlla fay leen meeru Touba la mu digge woon lépp def na ko tabarakallahu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax ndax bari na loo xam ne ku nekk ci maire ci dëkk yaa ko war a def waaye xam na loolu moom itam mi ngi ciy def li mu mën lépp yal na ko yàlla fay yàlla kàttanal leen ñoom ba li war ci dëkk bi ñu mën cee def lañ ca mën a def la ca def état mottali ko loolu yàlla na ko yàlla def ñu leen di gërëm bu baax di leen xamal ne li ci ëpp solo mooy Seex sàmba fii mu nekkoon du woon dara lu dul lislaam rekk la fonkoon te lislaam moo tax sunu borom bindunu binduma nit ak jinne lu dul ñu jàmm sàkkuwuma ci ñoom dara lu may sàkku ci ñoom kon foofin mu nekk foofu dong lan war a nekk nu itam yii yépp luy jàggale àdduna rekk la waaye li ëpp solo mooy jaamu yàlla toppi ndigalam bàyyi tereem def ponk lislaam yi di ko jëfe loolu mooy li nga xam ne moonu war moo tax suñu borom bind nu moo tax suñu borom bàyyi nu fi te Seex Masamba day dara doonu bëggam lu dul loolu bari na fu jàkk am ci dëkk ci réew mi ba muy tukki tukkeem boobu bu ñëwee bu fa jàkk amee day dal ca jàkka ja bu fa jàkka amul mu defar lu fa jàkka ba jàkka ja sax fa tey ba léegi kon kooku xam na li taxoon ñu bind ko yàlla nu yàlla dimbale man mën a sax ci ndigal yooyu yépp noo ngi sant nag autorité administrative yi tàmbale ko ci gouverneur ba ci préfet sous préfet autorité yi nga xam ne ñu yor sécurité bi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla yal na yàlla dimbale leen am na ci ñoo xam ne mënee su leen ñàkk a sant mooy ñu mel ne Salif Diséne def na ci lu bari Eaux et Forêts def na leen waroon def ñoom ñëpp daal ku ne am nga taxawaay bi nga ci war a def def nga ko ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ku ñu tudd ak ku ñu tudd ku deful rek lañuy ñuy tudd waaye ñi ci def jarul tudd kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax ministre ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm. yàlla dogal na président yónni la fi ay yoon bi nga nekkee ministre ba léegi amul keneen ku mu fi yónni ku dul yow te loolu dara waralu ko lu dul xam ku mu xam ne ci kër gi nga bokk ci kër Seexul Xadim loola nag am na ci solo lool ndax yow it xam nga li ñu la fi yónnee xam nga li nga fi doon xam nga ñi nga fi bokkal kon fa tabarakallahu doo mën a def lu dul lu ñu la wax nga jottali ko lu ñu sàkku nga wax ko ba fàttaliku ko loolu rek mooy saw doxin yal la yàlla fay daraja lislaam ci ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di gërëm la ministre Cheikh Abdou Bali moom it ku fonk kilifa la ku bëgg kër gi la ku bëgg kër sëñ Tuubaa la ci boppam te ñëpp ku ci kilifaam jox na la cër ba mu mat sëkk fa tabaarakallaahu dara desu ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ñeneen ñi ci des ci délégation bi ñëpp it fañ war a féete féete nañ ko lañ war a taxawe taxawe nañ ko lañ war a def def nañu ko ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp Alaaji Dia sama xarit la sama wëllëre la taxawaayam xam nañ ko bu baax mu nekk Bambey jàppale président lool tabarakallahu kon noo ngi sënt ñépp di këram ñépp di ñaanal ñépp di jéggalu itam guddee gi te nu bëgg bu beneen jamono te buñ ko fekkee ak jàmm te tal ko ñu di ko teel a def ba mu leer ba nga xam ne kuy ñëw da xam fi ngay teg sa tànk booy dem da nga xam fi ngay teg sa tànk waaye lii dafa guddi ba mu ëpp ndax fi ne daanaka midi bi jot na loolu moom ñu ngi koy jéggulu bu baax parce que yéene bu beneenee ñu def ko defin woo xam ne dana gën a woyof dana gën a yomb ndax loolu mooy li gën sëriñ bet loolu la bëgg mu ngi leen di sant yéen ñëpp di sant di waaw sëriñ Fall lu ñëw na fi waaw sëñ Fallou moom sañ Mbàkke soxna loo di président conseil départemental Mbàkke te sunu rak Modou Kara di sës ci moom ñu ngi koy sant ci loolu bu baax sëñ Aliou Thioune ñëw na fi moom itam moom ñi fi ñëw bari nañu moom daanaka ma ne sutal lim lim dafa mat sëkk ñëpp mu ñëw nañ tubaarkàlla dëkk bi fees dell tubarkalla loolu suñu xol seet na ci guyi fa tubarakallaahu li ci des daal mooy li nu man moom ay nit dong lañu li nu mënul état ko man nañu ci état jàppale ba lépp sotti loolu mooy li am solo ndax mi ngi jàppale ci dëkk yépp dëkk kilifa diine yépp boo dem fekk fa loxoom nekk ca biir na na na na na loxoom nekk ci Daaru Karim bi bu baax ba ñu gis ko te xam ne mu wóor nu ne li muy def ci dëkk yi def na ko fi sëñ xaadim gay sëñ xaadim gay del dafa bokk ci kër gi di njaboot ci kër gi am pas-pas bu wér bëgg sëñ Maamoor lool bëgg njaboot Seex Masàmba gépp lool woy juróom di kenn ci kër sëriñ ma sëñ Moustapha Lo moom it mu am pas-pas bu toll ne lu xew lu ne day ñëw nekk fi ba loola jeex mu doog dellu ciy liggéeyam te xaritu ñëpp la xaritu président la xaritu ministre bii la xaritu ministre yu bari lañu kon fa tabaarakallaahu nit ku baax la yal ko yàlla fayal nu ko te darajay lislaam te lépp loo xam ne yéene na ko ci liggéeyal ko maamam yi yal na ko suñu borom dimbale ba mën koo def nun de wax dëgg ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla dolli ko sutura bu baax defal ko tawfiix ak taysiir noo ngi sant daal ñépp bàyyiwuñu kenn këri Seex Masamba yépp ñu ngi leen di sant kenn ku ne njaboot yi lañ ci war lañ war a def def nañ ko lañ ci war a jàpp jàpp nañ ci lay tax bis bee baax def nañu ko yal na yàlla fay leen ñoo ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu maase tàllal nag sëriñ bi ñaan dégg ni mu ko waxee sëñ Fallu Mbakke moom sëñ Mbakke soxna loo bi nga xam ni moo jiite conseil département bi ñëw na ànd ak njabootu kër gi yëpp moom itam na ñëpp tàllal waaw kon ci ndigalal sëriñ Maama Anta ñu xam ne ne bi daa joxe woon ndigal ci turu sëriñ Cheikh bu cérémonie bi àggee ñu fanaa ñàngum xasida bi ba bët naa ma war a tër sëñ Massamba kon ne ñëpp macha allah sëriñ bi ñaan bismillah fu waay tàllal mu tàllal amin Mbakke noo ngi ñaan sëñ ma Moor mu yàgg fi lool noo ngi ñaanal sëñ Maam Moor mu yàgg fi